téeméer ak ak ñeent test yi xamante ne def nañ ko téeméer ak fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak ñaar ñoom ñu nga xam ne cas contact la moom la suñ bëri bu liggéeykaay yi di topp te di ko saytu am na ci fukk juróom-ñaar yoo xam ne cas communautaire la ñoom nag ñu ngi leen di topp tey ci diwaan yi plateau am na ñaar maris am na benn golfe sud am na benn wàcci naan am na benn aan am na benn jamñaajo am na benn Grand Yoff am na ñaar Parcelles Assainies am na benn xaar yàlla am na benn fas Mbao am na benn Hann Maristes am na benn HLM Nimzatt am na benn yooyu yëpp nag fii ci Ndakaaru Kaolack am na benn Richard Toll am na benn Touba am na benn jël nañu tey téeméer ak juróom-ñeenti malade yoo xam ne bi ñu leen saytoo seen eh, yaram gisatuñ ci doomu jàngoro ji Covid 19 ñoom wër nañu. am nañu nag ñaar fukki cas grave yoo xam ne ñu ngi ba léegi si suñu bërëb yi sowetaas eh, yi ñeneen ñi nga xamante ñu ngi tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan